The Rider Pro and Sam represent yaa ngi toog gee sil sa life num la rombe ak ñàkk muñ ak ci si sama life num ma yombe dundu bu dee su mooy wan ma ginnaaw lii de yéem na ma how many drinks la ma daw balaa say e mbokk jaaxle nga gën a tàgg naaw li la jege gën la sore it's a life don't worry bëgg a tekki moo la sonal te bunt yëpp a close donte gëm nga loo gis su like word won't close man ku ma séentu wala kaana tax ma jéngu baana baana système bu dépressif da ngay marijuana jolof leen da ngay nekk ci pression ba koy jóg nekk sadik ñàkk choix am passion di nga dox jolof booy dafa cool faaw ma song looco lu ma metti moom ma diis sa ma tontu mbokk yi àndandoo yeeg seytaane gëlee ñàkk mbopp yi waajur yi mën la nga fat ci soxla la vitrine du Baol ak ñiy topp ci Baol Times TV votre première chaîne de télévision régionale de Diourbel ñëpp a ko xamandoo yaakaar daa tabaski on est à quelques heures aujourd'hui la veille de la tabaski ñu dem nag marché Ndoumbé Diop xool l'ambiance xool nit ñi ni koy dundee xool waajtaay yi xool préparatifs yi gis nga marché bi euh, fees na dell ba jàll sax ça pose problème bërëb boo foo sànni mbattu rek mu daal di takk yaakaar naa ne marché Ndoumbé Diop a ngi noonu mooy seule destination bi nga xamante nii moo am ci Diourbel nag chaque événement noonu lay demee les quatre grands quartiers yi ñu fa dëkk ñëpp ku jug rek dangay dem parce que yaakaar naa ku bëgg euh, ndugg ku bëgg yëre ku bëgg dàll ku bëgg make-up ku bëgg defaru ku bëgg watu ku bëgg leen nag leen lépp ci marché Ndoumbé Diop mooy seule destination bi moo tax ñu ñëpp fa lañ jëbaloo moo ngi noonu fees na dell yéen a gis l'ambiance comment Diourbel aujourd'hui est en train de vibrer yaakaar naa retrouvailles tamit nga gis nit ñi man la fees fa ma tàkk samay dàll yow yëg la doo ko gis ma wéy dinaa ko xàll ma mel ci boo ma tiis tax ñu ne gaynde àll gëm-gëm la doo ko ñaata ñoo fi am waaye ñaata ñoo fi ñàkk des di xeex ak sa sa bidiw mën a fàq yaa tey xam nga fiis fi dal ko fi yomb xar-xar yeeg yi dal sa kaw laay bomb yoonu daw du gaaw yoonu daw du yomb uh. mu gaaw wala mu yeex bul nangu lu lay bomb benn la du tri ñeme go for free tekki bu mu jàmbi yamul ci lëwal ba ci tri bu toog jógal nekk góor yàlla yombul am jom ba nga tekki sell ñaan sa borom am wér gudd fan li ci desee comme ni ngeen ko gisee noonu bi ñu jugee marché nu ba jot tamit continué fi nga xamante ne mooy daralu jegaan demanal lu leen fi nga xamante ne mooy daralu jegaan nag boobu xool nag ferme El Hadj Djibril Sow waaye cette fois ci eh, dara bi jaaykat yi ñëpp ñëw nañ daral baa ngi ni xumb na loolu ah gis nga mbëkkante nañ ki nga xamante ne mooy Khadim Baye Fall Khadim Baye Fall yaakaar naa ne dootu ñu ko présenté nekkoon na ci Baol Times su fi def eh, ay numéro ñu laajaat ko nan la gisee taxawaay bi ak eh, tabaski bi ban appel la ci lancé waa barke maam Serafal barke maam Serafal barke maam Serafal barke maam Serafal barke maam Serafal. salaamaaleykum mbokk jullit yi nuyu nañ leen siyaar nañ leen jox nañ leen seen wàccuwaay euh, Mor Sène dañoo ñëw di wut ay xar di wut le suñuy mbokk ay xar di wut maanaam maanaam wax de fekke maanaam waxaale jéem caa wax ba kooka jaral kooka jënd te du metti fii nag mooy dispensaire kër bii mooy ancien daral bi beneen bañ tudde bu mag ba fee mu nga fee waaye bii moo ko mag mooy Senelec léegi nag xar yi seer na seerul ndax dafa fekk maanaam nit moom boo yoree maanaam comme ça nga yor fukki junne da ngay xool xarum fukki junne kii yor xarum waaw kii yor cent mille xool xarum cent mille bu ko defee dara du jafe waaye yor cinquante mille di xool xarum cent mille day jafel maanam njëndante ma dégg nga soxna yi it gis nga ñu ngi romb ak yi maanaam dem fale di defar ba mu baax lii daal yàllaa ko digle tabaski ndax Ibrahima Xalilullaahi lañ waroon a tër suñu borom wàcce xar ñu remplacer ko te noonu la waroon a demee rendi nit lañ waroon a def ngir tabaski kon nag buñ ñu demee ba yàlla suñu wàcce yàlla suñu borom wàccel ñu ko duñ ci def dana mooy sant yàlla rek te jéem a fagarlu. non waaw jën naa. waaw root naa mu nga nii. mu nga ne ca ma. Ah. waaw damay tabaski. waaw man de. sama xar de xam naa jomaay moom xam nga lu mu jënd waaye maa koy gën a ndawle. ah man de sama xar dem na ba ci fukk ak ñett fukki junne ak ñett kon jomaay moom a supérieur tuuti waaw ndax man loolu dama koo laasé message sax avant ngay ñëw ndax ñi nga xam ne yàlla dañ leen seet doole dañoo dëkk ak ay nit fii ay dëkkandoo yu bari yoo xam ne seen loxo jotut seen ginnaaw ndax séddale bi yàlla yemut nga jël maanaam la nga war a jënd xarum 400000. diffusé ko jënd bu cent cinquante mille trois cent cinquante mille yi nga dugal ko ci kër yoo xamante ne say dëkkandoo la ñu ci jaamu yàlla la bokk mais jënd xarum quatre cent mille sa dëkkandoo toog ak yow yor yor maanaam juróomi junne moon taam xarum fukki junne génnut. Euh, waaw comme maanaam fan si may topp maa ngi leen di ñaanal yàlla ñu julli ci jàmm ak salaam beneen message bi ma ciy lancé mooy. bor bu mu la fekk ci tabaski ndax buñ jullee ba bët set dépasse yi dañuy continuer lii benn fan la muy suba damay bañ maanaam crédit fekk la ci tabaski bii bët ñu lay taxawu wala ngay consommer li nga jë li nga leb doo ko mën a lekk normal mu lay saf saabu ndax suba. waaw loolu dëgg man adduna loolu. yàlla yàlla tegut kenn lu mu mënut. loo loo loo yem loo am rek. yemale ko ca la muy la mu tollool Omar Sène lii laay jox maanaam sama mbokku jullit yeeg mbokku taalibe yëpp bor daal jaru ko gis ngeen mbokk yi dañ leen indiloon ci nga xamante ni mooy seen début ambiance veillu tabaski au niveau de Diourbel di leen jox dox daje ba ci kanam tuuti ak beneen numéro yeneen bataaxal